nuy naa ñëpp fii laay tàmbaleeg yéen ci seen revue de presse teel sa kaasu kafe nga guux bala ngay naan bay simbaleex wax la li xew ci réewum askanu sunu gaal yëgle gi ne fii fi def di waxu lu fi ay di njàmbat ñaare sax nag ku def ko wax la bëgg libération yëgle kaay naan man lii dinañ ci wax de ay waay ndekete yow mbirum askanu sunu gaal ndekete mbóot yi nekkul ci suuf si dong de dugal ca kër docteur ca fañuy faje yëgle kaay gi naan man ay jafe-jafe nga fa fees del laa wax ay waay ndaw sàmba xoolal ma lii ci lu jëm ci wàllum prise en charge su bi ay surfacture ilaha trois milliards francs CFA fu mu jëm ci seeni poste dong koy dugal de yëgle gi naan maan bu waree bind un milliard ca facture ba def fa moo trois milliards fu mu jëm seeni poste la naan ko de ndiix ne yëgle bi naan ma am na ci ñoo xamante dañ doon jaamu société yii di wuyoo ci turu Nipro ak Fresineuse ay chef de service ay directeur hôpitaux publics ñoom ñëpp mujj doon ay courtier laa xoolal ma lii lu ñaaw la lu ñaaw la waaye li ci lu jëm laa wax dañ doon nax baykat yi ay eh waay laataa muy egsi ci baykat yi daanaka as coppatus tuut nduut mooy ñëw ci ñoom te bu wattuwul sax ñu jaay leen la ñu ko ni ko dëndiix libération yëgle kaay naan man ma fiyaa ba jàppas nañu leen ngoy nañu leen xuma fan moo koy amati waaye doonatul ci réew mi de tee nañu leen de da rek ay quantité yi quantité yu ngand laa wax yooyu gerte yoo xamante ne dañ ko subventionné mu war a jëm ci baykat yi xam nga fan lay tag tagaat ci ay ministre ministre ñuy jaayaat ci ay député ñuy jaayaat ci ay haut conseil des collectivités eh waay ñuy def lu leen neex di caxat-caxatee yëglekaay gi naan maan yemul foofu am na ci ñoo xamante ni sax ay sëriñ la ñu laa wax ay personnalité religieuse maa la wax lii libération yëglekaay naan maan te kat du am benn justification nag benn dara dara amul looy justifié jël rek te da ngay gis ay opérateur privé yoo xamante ne ay personne physique la ñu ñëw naan ab GIE laa ne ñi naan ci établissement laa ne ñi naan société laa ne ñi naan ay coopérative laa ne lépp dara tus du ci dëgg li nu bëgg rek mooy jël jiw bi yooyu la naxe ak googu te dëng te nag moo jeex ci réew mi askan sunu gaal njiitum réew mu yees ñi nee jubal gi ak jubbante gi moom fépp la amul fenn fu ñuy bàyyi gig dëng te moom doy na waar de ngir capter li nga xamante ni mooy quota yi te doo am benn appel d'offre am na ci ay membre commission yoo xamante ni supervision moo leen fa tax a nekk ak contrôler ngir jiw wi jaar ci aw yoon ba àgg ci baykat yi opérateur privé yi ñoo leen jënd ñu jaay seen ngor da gis kun neexal ba jox la un ngir rek nga ni patt noppeek moom ndax lan ñan ñooy dee baykat yi ko nangooti nag ci réew askanu sunu gaal gi munu feene jiw moom bu jógee day ñëw directement ci baykat yi ñu jëfandikoo loolu la njiitum réew mi diggee jub jubal geeg jubbanti gi Bassirou Diomaye Diakhar Faye woote njiitum réew gu yees gi la yëgle gi naan man du ba dara ne fépp lay jubbantee ka defar daw na ca fa nga xamante ni moo di ca wàllum dem baak dikk ba ca transport ba yëgle gi naan man Bassirou wax na ca dem na ca BRT ëpp law seet xool li jënteeka lañ mbët ne lépp la soxla de audit maa la wax lii day leer nañ ni aw bëccëg amul lenn lu fi nguur gi defoon di dem noonu mu koy mbaay noonu doon di pat ak moom daa mënta ne bu ko defee rek kon continuité lay doon rupture la woote les éco yëgle kaay naan maan ba mu jógee ca suuf sa fexe ba déjati mbóot yi nga xamante ni gaa ñu bare bare bari laa wax ñoo ko dencoon di sàcc mboomeelu askanu sunu gaal gi jomaay xam nga ñan la ciblé waa Dakar dem dikk ak BRT audit ba wax na ko xool parc yi oto yi ña fay liggéeyee lépp lu jëm ci wàllum dem dikk daal mu xool saytu ko bu baax xool fu mbirum BRT bi fu muy jógeeg fu muy dugg financement bi lépp laa wax moom ne ko aali gët ngir mu xool li dëng mu jubbanti les échos yëgle kaay naan man la ñuy jubbanti nag cent mille logement yi bokku ci ubbil yéene bi Sonko ci jëmi boppam day maintien les cent mille logement mook Basiru Jomaay Jaxaar Fay mi njiitum réew mi premier ministre ne du tee ñu teg ay mesures yu am solo te am doole laa wax yëgle gi naan man ña ngay makkiliser mbir ma maa la ko wax continuité la nga xamante ni moom la fi makki baan le quotidien yëgle la voie ah, li ma ngay toppandoo njiitum réew président Macky Sall toppandoowu ko de déedéet waxtaan la mu xool mu xam ni lii kat lu baax ci askan wi la mu ne da koy wéyalee lu jëm ci wàllum cent mille yi ku ne xam na ni Sénégal yi ku ne daa war a am kër yëgle kaay gi naan maan bourse ci jëmi boppam ña ngay placé ay nitam nag fi ni tembe nomination yaa ngay takkar naa sa de maa la wax li deuxième vague ba tàmbali na Mamadou Habib Diop Sarr Ndéné Mbodj ñu yóbbu ko ca kuddu Ayru Thiam ARTP yëgle kaay gi naan maan ña nga leen di fal kay xam xam nga lan la ordonné ñu daaneel immeuble bi nga xamante ni fa faal yëglekaay gi naan man dem si yàlla si ay waay un milliard la ko jaaye woon laas yëglekaay naan man ki nga xamante ni moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye mii di président waaw fi ñu toll nii tembe ma ngay wéy di dagg bopp yàlla wax baal kenn nee du baale de déedéet déedéet kaay ma waxal la bërëb yi ma lay waale yimal ARTP day leer nañ ne aw bëccëg SAR day leer nañ TDS fond 6 Dakar dem dikk ak yu ni mel léppay leer doxaloo mu soppi la def fa aw nitam ñu doxal waay waay wat gaal ak yëgoo te nag kaay ma wax la yenn côté xëddéen sax nag ñoo mën a ànd ki tey jile ci àjjuma ji yëgle kaay gi naan man moom Basiiru Jomaay Jaxaar Fay Basiiru oh Basiiru ñoo koy xaar fa nga xamante ni moo di ca Daaka Medina Gunaas fa la war a amalee julli gi réew mi quotidien yëgle kaay naan man réew mi bu leen jaaxle njiitum réew mi xam nga kim fi tekk ji ilimaani jëwrin ilimaani jëwrin waa xam ngeen ko président Ousmane Sonko mi premier ministre waa la nga xamante ni moom lañ leen digoon ci wàllum dund gu seer ko wàññi ko ba mu ni sëngéem Bassirou Diomaye nag ma ngay joué ab sécurité 24 heures yi li kaay ko wax ma ne ko fan la mu ni ma xanaa ca watay accident yi bari yi ci réew mi askan sunu gaal tax mu jóg ne ay mesure moom faw rek rek jël caaxaan faaxe séeréer bi xamul caaxaan de maa la wax lii plan d'urgence prévention ak sécurité routière waaw te nag dañ koy appliquer de amul dara tus naada luy tee ñu appliquer li nga xamante ni mooy lii nga xamante moom la fay biram penda a samp waaye ko Espagne laa la wax neuf rescapés dong képp rek dong lees gis 63 réer ca Espagne ay fu jëm ak lii ku ko xam na ma ko wax beneen guta di mbir mu doy waar am dal ci ay élèves akub étudiants yëgle gi naan man de leen a de e ndaw sàmba ca liberté 6 ñuy trafiqué aw dorog moo élève ak étudiant luy seen wareef lu dul jàng lu nuy wuti ca dorog moo ma jaaxal kii jaaxle woon ba dugali bii jaaxal ko kooka Nicolas Jackson lay wuyoo yëgle Maguette seen bu kuddu ñoom ñëpp dàq nañ leen waa mbaa fàttewu leen ni le cinq gi nu jëm Eumeu Sène du xam ngeen ko ak Sa Thiès ñoo fa seenee laale ëllu làmb ñëpp ñàkk kanu ñàkk kooka Gaston lay wuyoo aajo Gaston la réew mi quotidien people xamle yàlla na ko yàlla yërëm sëy laati bu baaxee rek ba sëlma clavier ñu dem ba subaak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu sur revue de presse wolof ak Fall Damel jaa ngeen jëf jaa ngeen jëfaat waaye yéen ñi ñuy teewlu ah, nu naajee ñu ngi jéggalu bu nu teelee itam ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di leen bigee di leen jox seen wàcc waaye lu mën a ndax ab jaam lu dul ak cant waru ko euh, ak cant rek la war di saxoo saa su nekk di sant yàlla yàlla nag moom day xam le ni sant leen ma ci xéewal yi ma def ci yéen ngir ma dolli leen yàlla moo ne ku sant mu dolli la tey itam nag ak cant xéewal du xaalis kese wér gu yaram xëy wér ni cocc mën a wax mën a dem mën a dikk mën a julli mën a def li nga war a def lépp loolu ak cant la loolu ay xéewal la de loolu ay xéewal la nga war cee sant yàlla mu dolli la xëyee ci sab néeg heure bu la neexee nga génn heure bu la neexee nga duggaat sa néeg heure bu la neexee nga dugg sa wata dawal heure bu la neexee nga dox ak sa tànk dem fu la neex dikkaat loolu liberté googu noonu ak cant la parce que jamono ji nga ko amee am nga sa morom mu ko amut ña nga ca ma nga ca kaso ba caabi féere ko ginnaaw mu am ñu koy garde kon loolu tamit ak sant yàlla la bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ah lu leneen li di ak cant mooy xëy yëkkati sa kàllaama wax mu àgg nga xëy xool saw yaram fekk ci ak wér ah nga mën a bajantu mën a def lu la neex loolu ak cant la ndax am na sa morom moom ma nga ca hôpital ba fi mu toll nii demee ñu koy sampali biteel bu sañoon wér waxuma la wér di wër di dem dox ak doxi ay soxla mbaa wér di wuti alal mbaa wér di am waaye na wér rek toog këram am na ci koo xamante ni bu sañoon moom na amu wér toog ca këram kese kese kese kese kon nag lu la yàlla defal sante ko ko yow mi yor sab tànk di dox di dem am na ñoo xamante ni ci puus la ñu ne yow mi am sa puus am na ñu ko amul dañuy direeku yow mi direeku am na ñoo xam mënunoo toog yow mi mën a toog am na ñoo xamante ni tëdd dong la nu man deel sant nit ki da ngay sant yàlla ak lu mën a xew sante ko yàlla waaye dëkk ñaxtu sama lii sama laa ho oh, oh, ho ah ah ba kañ see leen sant loolu ab parenthèse la woon rek bu nu ubbi woon ndax damaa tàmbali rek ni maa ngi sant yàlla di leen ko seedeel maa ngi sant yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala mi dara tëwul yéen ñi may teewlu ñépp maa ngi leen koy seedeel yéen laay jël seede acca gars yi nan naan café gi simbaleexu guux leen ah, café waaw am na 78 la 453 48 86 nga ne ma Fall Damel man la allo ma café gaa ngi simbaleexul ñu bëggee ñëpp jox ñëpp seen wàccuwaay kontaane ñëpp itam waaw café gee neex de moo tax ma koy mm, mm, am noonu hmm? ah, ah waaye ku ku ku seexlu neex tàqamtiku nag bàyyi leen ma ah waaye baax na kontaane ñëpp waa jiw yi ñuy ñaan rek bu jógee teen ni bërit la ko njiitum réew mi waxee woon dem direct ci baykat yi loolu moom dañ koy ñaan waaw suuf si nii caxat-caxatee gis nga ñi ngay jàpp gaañ xoolal ma ba ci jalis bi yow yow kër doktoor segam ñooy luubal kuy kuy jubal ah te jumaay baagul de fépp lay dem nag ku yaakaar ni jomaay du yëgsi ci yow yaa ngi nax sa bopp maa la wax lii ay waay président waay président waay waaye yéen nag waaye yéen nag yéen nag yéen waajur yi nag lu nu waxtaan ngeen defee lu nu woo bàjjan xuuja ak sëñ Abdou Salaam Sarr nu waxtaane lii ah yéen waajur yi ah seetal leen ma gone yii yow toll ci am njàng kii di ab élève xam nga ne élève moom amagul bac ah kii de ab étudiant soit da koy soog am mu yàgg ko am waaye étudiant la ro weesoo gutum njàng lu seen yoon ci ci ci dorog lu seen yoon ci dorog ba ñuy dugg ci aw dorog ba leen di jàpp ni ah léegi léegi musiba mbaaba kumba mi ah waay waay waay waay waay lii lii lii jar naa waxtaane de lii laay sama xol bi jeex na tàkk rek drogue élève loo ci wuti yow néewoo siiwee am moyen bu baax néewoo siiwee jàppale say waajur tekki waaye dañuy foog ni dafa am yeneen yoon wu gën a gaaw yoonu yoonu yoonu yoonu régler ba mën a tekki tekki ñoom loolu lañ defe ah, ah waaye baax na waaw sama xarit bii dëkk ayre ayre ayre laawo ayre laawo ca Fuuta la nekk waaw maa ngi lay bëggee jaaraamaa sama xarit Touré si maa ngi lay niiw ah waay ah nit amul lu dul xaritam nekkal fongolo bi nekkal aéro aéro aéro laawo yéen seen turu dëkk bi nag daan neexut a wax nag aéro laawo ne fa fu waay mën a ne di ma bëggee man dama lay bëggee commentéral ma gis ko Laat Diop maa ngi lay niiw boo mënta commentaire sax nga jox sa ndoom maata mag maata xarit ni ko fiis bindal ma fi waay ah Aboubacar Ababacar Badiane. waaw maa ngi lay bëggee de ah waaw bu xoromoo rek ci yéen la nag seet su joor maa ngi koy nuyu maa ngi koy nuyu El Hadj Sakho maa ngi koy bëggee ah waaw attaku Diop maa ngi lay bëggee waay ngi nii sab xarita Mamadou Lamine Ndiaye maa ngi koy nuyu waaw ah, waaw sama yaay Ami Jabaay maa ngi koy bëggee ku baax madame Sagna Papa Diop maa ngi koy bëggee Aïcha Ndom maa ngi koy nuyu di bëggee sama xarit. waaw sama xarit sama xarit ah waaw sama xarit doom ci njaga njaay wallaay ndeysaan naam naam naam naam naam njaay jaata njaay ah aminaar njaay sama xarit maa ngi koy nuyu papa Diop Issa Dangoura Fall Ndaw Couture Jibi Baax maa ngi bëgg bu baax a baax Abdou Fall ñoom princesse princesse Ami maa ngi lay bëggee de maa ngi lay bëggee ah. waaw wallaay wax nga dëgg magum jëmm di farantu wutal jëkkër moo gën wallaay wax nga dëgg doom ah waaw mooy ki doon farantu ba doom ja duma farwa <laughs> lii lu ah Mohamed Bey maa ngi lay nuyu El Ba maa ngi lay bëggee waaye maa ngi nii borom Thiès info Baye du Yàdd sama xarit Amadou juuf maa ngi lay nuyu Mamadou Saw jaw maa ngi lay bëggee Cheikh wàdd maam Amary fay maa ngi koy nuyu daam Fall waaye merci waay daam Soley borom italiano Omar Diallo sama xarit Babacar Guèye maa ngi lay nuyu Kéba Dia Abdou Kane maa ngi koy bëggee Modou Laye bay 1 ak 2 Bamba Seck Michel Tine sama xarit maa ngi nuyu bu baax a baax aadama Kunta Cheikh Omar Diop maa ngi lay nuyu Fallou Guèye maa ngi bëggee bu baax a baax Tafa Boy di bëggee Ami Ñang Ami Ñing di Moes Mor Seck mas puy maa ngi koy bëggee waaw ah, borom tuubaay taliyan maa ngi lay bëggee Maodo Kane maa ngi koy bëggee Ami Jabaay Mbuur dem Sagna ma bëggee Guèye Soda Mbodj sama xarit momo papa maa ngi lay bëggee waaw ah waaw a Njaay ngi nii maa ngi koy bëggee maa ngi lay bëggee Astop Diop Sam Seck bëggee naa ñëpp di wax li ma leen waxoon rek di leen ko fàttali ni leen lépp lu jëm ci ay doléances yi dëkk yéen ñi yor ay doléance ci seen dëkk yi mu ngeen soxlaw yoon kër docteur lu mu mën a doon ne ci seenub dëkk di leen sonal ak lu mu mën a doon wax leen ma ko man ma ne tànjang fii ci café gi naane ko café waaw man population sénégalaise laa fi nekkal askan wi laa fi nekkal seen soxla laay jaamu man faal dammel maa wax lii ba ba ba ba faaw nag ak lu mën a xew ci sama jëmm ji man maa ngi ak yéen waaw déggee naa leen jox leen seen wàcc waaye dinañ jox dig daje ba suba ak jàmm jër ngeen jëm